dalena jàmm mbokki internet di ñuy bàyyi xel ci xibaar ginnaaw bi leen nuyoo ci safo gi ak saxoo gi fii ci Yatal Vision di leen ñaan ngeen abone bu baax a baax a baax li nga xamante ne bi nekk mooy kàddu yi Serigne Moustapha yi boo xefee nag mu jural ko laneen ndax kat yi ñi nga xamante ne bi ñoo di euh, politiciens yi ak yenn ci imam yeeg euh, ustaas yi ñi ngi koy taxaw di ko weddi moom mii di Serigne Moustapha Mbacké ginnaaw bi nga xamante ne bi nag doon na defoo benn émission fii ci IYAT TV moom mi nga xamante ne moo di Serigne Mountakha Mbacké nag mu wax ne eh, li nga xamante mooy mooy procès Ousmane Sonko Adji saar buñ ko yóbboo ci biir koor gi ngir bëgg ko cee defee nga xamante ne biir koor gi buñ wooree bu yóbboo procès bi koor kenn du am jotu dem di manifester wala lenn nee boobaa day dagan ñu bañ a wóor loolu nag ba mu ko yëkkee ni kàddu am na ci ñoo xamante ni bi jug nañ daal di ngémm taxawoo ne ko nag loolu moom du xel te du xalaat te kenn du ko fi defee ndaxte kat ñàkk bañ a woor moom musiba la ci ab jullit waaye kat kii di Serigne Modou su Mbacké mi nga xam ne ne loolee jihaad la te jihaad kat am nga sañ-sañu bañ a woor loolu la tax mu digal ñi bi xëy na ñoo koy diglu ci wàllum politique ak ñi nga xamante ne rafetlu naan am xelam ci wàllum politique mu xamal leen ne leen loolu buñ ci yeggee jàmm jihaad la te jihaad moom dana jàll bañ woor ngir mën a défendre sa réew war mën a défendre sa bopp ndaxte kat loole ak noteel la te noteel googu kat dañ kaa war a bañ ba faw ci kaw ni nga xamante ne bii noonu la ko mag Sall fa yéenee defee loolee nag ginnaaw bi mu jubee ñenn nag ci ay nit commencé nag di ci wax ak di ci dox daan ne lii kat kilifa diine bi wax du yoon te du dëgg te it kenn wul koo seetaan mu di continuer di ko wax loolee nag. ba amee kilifa diine bi nga xamante ne bii nii moo di Serigne Modou Asta Mbacké taxul mu deltu ginnaaw benn yoon ci li nga xamante ne bii wax na ko ndaxte moom jàpp na ne li mu wax fi mu teg tànkam dafa wóor waaye nit ñi nga xamante ne bii ñooy weddi jàpp nañ ne fi mu tànkam nekkul foo xamante ne fu dëgër fu wóor